trois jours marche tey marche bi léegi la ko nit ñi yëg mais boo nekkee ak nit nekk ci réew li nekk ci réew mi soxal la da ngay nekk en alerte à tout moment xaaju guddi sax buñ la yeewee ne la marche am na da nga war a jóg nga dem ci marche parce que loolu moo gën a yomb dem participer ci marche dem taxaw ci rassemblement moo gën a yomb xiifal moo gën a yomb tëdd ci kaso yi moo gën a yomb leneen jël gaal yi donc nag que tout le monde se le jàpp ko def ko itam heure bu ñu waxee rek marche am na suba tey na ñëpp génn parce que loolu moo gën a am solo naan Ousmane Sonko bàyyil xiifal bi te ñun duñ def dara pour teg ko ci loxoom. Euh, mais nag marche bi commencé na de te moo ñu fi indi waaw xale yi jël gaal jamono ji nii li ma leen di wax mooy ne nit mënoo defar sa dëkk ba pare di tàyyi mënoo defar sa dëkk di décourager mënoo defar sa dëkk di baisser les na ñu toog Sénégal parce que risque bi ñuy def ci gaal yi pour dem di dee ci àll bi bu ñu ko defoon ci xeexu combat démocratique yi kon dëkk bi baax ah donc nañu toog ñu ànd ak ñun ñu defar sunu dëkk parce que loolu moom mooy yoon keneen du ñëw defar Sénégal ku dul ñun waaw ñu koy ñaawlu di ko méttitlu parce que feebar bi mu feebar foog naa ni mënoon na ñàkk mais aussi damay préciser ni feebar bi mu feebar moom tegu ko boppam parce que lu waaye gàtt gàtt xel. war a xam ne nit du teg boppam feebar donc Ousmane ko dafa feebar parce que dañ ko tëj ci kaso dañ ko teg lu dul yoon dañ ko bëgg a briser dañ ko bëgg a xañ citoyennetéem bañal ko même mu nekk électeur bañal ko mu nekk euh, euh, mu nekk euh, candidat loolu teguñu ko fenn c'est une forme de résistance bu mu nekk di def li ñu ko mën a soutenir moo ñu ñëw ci xeetu marché yi moo ñu ñëw ci xeex yi ñuy woo moo ñu ñëw ci taxawaay yi ñuy woo loolu moom mooy sunu taxawaay mais sunu taxawaay du nañ ko wax na bàyyi xiifal bi na bàyyi loolu parce que Ousmane Sonko bu bàyyi xiif bëtam taxul mu wér bu bàyyee grève bi tëdd ci kaso bi taxul Sénégal kese baax Sénégal yi tax mu baax mooy kenn ku nekk jël sa responsabilité moment bi nga ko war a jëlee donc maa ngi invité sénégalais yi ñu ñun waxuñu kenn génnal nga taal alalu jàmbur mais génnal nga manifester heure boo déggee manifestation muy guddi muy bëccëg da nga war a génn nga manifester. parce que loolu nag c'est un devoir citoyen parce que Ousmane Sonko kese mënul defar Sénégal il bu nekk jàpp fi mu a jàpp boole boppam tamit ci mbir mi donc tey ñu ngi demander la libération des détenus politiques. di wax Macky Sall itam ne ko Ousmane Sonko munoo ko lekk munoo ko naan munoo ko xañ mukk nekkam Ousmane Sonko lu mu gën a nekk ci kaso bi muy gën a nekk ci xel yi muy gën a nekk ci xol yi donc il est temps nga nga acter sa échec nga acter le fait que munoo ko briser nga génnee ko ci kaso bi balaa l'irréparable ci am parce que loolu nag lépp lu dal Ousmane Sonko yow yaay responsable merci beaucoup merci. ndaxte actuellement ñetti ñetti mbir yi ñuy toppee Ousmane Sonko yëpp nërmeelu na. benn mënu ko cee tee nekk candidat parce que pour mu topp ko ci mbirum Mame Mbaye Niang il faut ñu daan ko lu ëpp juróom-benn weer ñoom juróom-benn weer kese lañ ko daan bu ko defee beneen dossier bi tamit dossier Adji Sarr bi bañ koy atte fekkewu ko loi bi moo ni buñ la attee te fekke woo ko bis buñ la jàppee rek lan la atte woon nërmeelu na kon nag beneen bu mujj koon attewaat moo fi des te ñoom xam nañ ne amatuñ temps pour attewaat ko beneen bi nag mooy li nga ko mujj a jàppe moom kenn àtteeg ko ci donc Ousmane Sonko kenn mënu koo tee jël ay fiche de parrainage am su fekkente ne teg nañ ko ci yoon su jëlul ay fiche de parrainage am mooy dañ ko bëgg jaay doole kon nag na Sénégal yëpp taxaw ci ginnaaw Ousmane Sonko mille détenus politiques yi ngeen di dégg Ousmane Sonko tax ñu jàpp leen kon nañu wax nañ bàyyi ñëpp bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi këram waajal candidature am 2024 incha allah sénégalais yi fal ko mu jiite réew Euh, ñuy wax fan yëpp dafa critique ah tey est-ce que jural nga xam ne yéen a koy jàppal tànk mais jural nañu jàqare moo tax Ousmane Sonko li muy dund sénégalais rek ñoo ko ci mën a génne parce que mënuñoo seetaan koo xam ne ñu sénégalais yi koo xotti xolam moo ne ca biir moom Macky Sall ni par force yéen ki ngeen bëgg yéen sénégalais yi du fi nekk candidat kooku coxorte gu metti la mais jaay doole gu metti la kon nag Ousmane Sonko li ñu ko teg jaaduwul dafa mel ni Ousmane Sonko du sénégalais comme sénégalais yëpp parce que Macky Sall bu ñu ko jaayoon doole tey du nekk candidat bay jiite réew mi te moom amul woon mbooloo top topp Ousmane Sonko genn wàllu mbooloo Ousmane Sonko sax amu ko woon kon bu ñu ko jaayoon doole du nekk candidat Ousmane Sonko depuis deux mille vingt et ba léegi lu ne ñu ko koy ci kawam te teewul sénégalais ñu ngi ci ginnaawam kon nag mu neex mu naqari sénégalais yi Ousmane Sonko lañ bëgg tey moom lañ bëgg ëllëg lee muy dund nag metti nañu li muy dund metti nañu ñun ñëpp metti nañu parce que man fu ma waxee ak médecin ba pare sama xol tooy wóor ma ni Ousmane Sonko mii mi ngi ci danger fi mu toll nii à tout moment mun nañ ñoo annoncer une mauvaise nouvelle te loolu lu garaaw la te Macky Sall boo fi seetaanee ba li ñëpp di tiit am Macky Sall boo fi seetaanee ba li di tiit am musiba dinañ am ci réew mi kon bu bu bu képp ku yéene Macky Sall jàmm na ne ko na bàyyi Ousmane Sonko mu dem yoon.

si ñi nga xam ne moom mooy dund politique gars nag euh, soo xoolee jamono ñuy wax ak yéen euh, Ousmane Sonko ngay gën a dégg si li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy sur la voie des ñi nga xam ne tey ñoom ñooy les les manifestants ñoom ñi nga xam ne tey ñoom ñoo joxe woon di di ndaje également un point essentiel à souligner mooy la présence ñi nga xam tey ñoom ñooy le collectif des familles de l'unité politique Malick Gakou jërëjëf waaw oh, tey jii xam nga ne dañuy ñëw tey fii ànd ak sénégalais yëpp pour xeex li nga xam ne ni am ci Sénégal eh, xam ngeen ne il y a 1200 prisonniers politiques au Sénégal en plus de notre camarade Aliou Sané du F24 donc nous sommes là aujourd'hui pour nous battre pour leur libération et nous pensons que le Sénégal doit rester une terre de liberté et de démocratie et c'est la raison pour laquelle nous sommes avec toute la jeunesse pour obtenir la libération des détenus politiques et afin que le Sénégal redevienne une terre de démocratie où les libertés d'expression euh, et la pensée politique sont C'est exactement le sens de la manifestation. Par rapport aux familles des détenus seen teewaay ñu ngi ne ñi nga xam ne tey dañ leen teg loxo si si anam bu seen i njaboot seen i waajur ñi ngi ñëw def tamit teew lan lan mais jaaduwul. xam nga ni xam xam nga ni eh, Sénégal kenn waru fi tëj nit kaso ci parce que simplement day wax xalaatam parce que Sénégal dëkku liberté la war na mës a nekk donc c'est la raison pour laquelle nous pensons que ñoom am na droit manifester am nañ droit wax seen xalaat amuñu droit jàpp leen tëj leen ci kaso bi et loolu moo tax ñu ànd pour xeex pour loolu. pour le cas mais c'est la même chose nous nous battons pour la libération d'Ousmane Sonko. avec une grande virulence, puisque Ousmane Sonko mène un combat héroïque pour le Sénégal. Avec nous tous, nous nous battons pour la patrie, nous nous battons pour la démocratie, nous nous battons pour les libertés. C'est la raison pour laquelle nous saluons son courage, sa détermination et son engagement pour le Sénégal.